pour que nga préparer euh, ngeen commencer travailler sur une loi d'amnistie euh, pour euh, sur une loi d'amnistie pour régler les questions d'inéligibilité loi d'amnistie boobu fan ngeen ci fan ngeen ci toll wala da ngeen mettre les travaux en suspens en attendant waaw fan ngeen ci toll. pare na parce que président dafa ne nañ xool nan la ñu mën a def ba nga xamante ni ci biir dialogue national bi suñu waxtaanee ba juboo ci mu am ñoo xamante ni kat ñàkkoon nañu seen i droit ñu xool lu ñuy jëlaat seen i ma dégg ñu ne euh, mun nañu modifier code électoral bi wax ne léegi ñi nga xamante ni purgé nañu seen peine ba pare ñoom mun nañu leen bàyyi ñu. L29 L30 ak L57. non ne ko parce que soo nee L29 L30 mooy di bàyyi ñu inscrire ci liste électorale bi. soo est-ce jeex na parce que L57 dafa ne. pour être électeur pour être éligible il faut être électeur parce que loolu constitution bi daf ko waxoon pour euh, pour euh, kii bi pour pour président de la république mais code électoral boo ko woon moo tax ñu dugal ko ci biir code électoral bi donc loolu amul problème L29 bi la ak l bi mais loolu mun nañ ko def comme yoon ñu ne dañuy modifier code électoral bi mun nañu jaar ci loi amnistie Sénégal bi mu nekkee Sénégal ba léegi ay condamné su ñu leen buggee baal joxaat leen seen i droits civils et politiques amnistie lañ doon jaar ndaxte amnistie mooy pour baalaate parce que il faut nga baal su yoon toppee kenn daan ko tëj ko ñu dem appel ñu confirmer ko ñu dem cassation ñu confirmer ko mënoo jóg rek ne non léegi mun ngeen inscrit quoi non non non loolu soo ko defee sax justice dafa mel ne da koy da koy da nga. mais donc loi d'amnistie projet de loi d'amnistie yoo xamante ne proposé nañu ko président la. alors dialogue bi mu est-ce que prévoir leen inclure ci yeneen parce que démb Dundoy. nee bon j'en j'en reviens. non c'est prévu wax euh, de corruption à la jeunesse. bi tax corruption de la jeunesse. bi tax. ñu ah, ah, ah, avec le délit nationale mën na annuler euh, ce ce ce ce délit là et donc bu ko assemblée nationale annulé mënatuñ ci jàpp Ousmane Sonko. assemblée nationale mën naa annuler viol comme ça ñuy jàpp viol yëpp ñu bàyyi ko mu jeex suñ suñ suñu annulé woon viol assemblée ñuy jàpp pour ñuy jàpp pour viol ñoom tam mën nañu ne loolu viol amatul. assemblée nationale mën na annulé détournement de deniers publics ne léegi détournement de deniers publics amatul donc ñuy jàpp détournement de deniers publics jotuñu leen di bàyyi loolu loolu bëgg wax wala bëggul wax loolu. waaw bu ñu annuler le délit de corruption de la jeunesse. ñi ñu jàppati ci loolu yëpp dañ leen di. dañ leen di libéré bu ñu fàttee wax nag les lois ne sont pas rétroactives de les lois sont faites pour l' avenir bu ñu fàttee wax ne annulé nañ ko waaye annulation boobu concerne ñi nga xam ne condamné nañu ba pare soo ko fàttee du baax de loolu mooy problème disposition transitoire ci article 27 bi ñuy discuter attention soo ne annulé naa euh, infraction bi euh, euh, corruption de amatul. waaye am na ñoo xam ne condamné nañ leen ci ba pare soo waxul ne ñoom ils sont concernés la loi déclarée rétroactive. mais mu leen ko dugal ci loi d'amnistie bi rétroactive. bi. lu tax ñu war ci dugal corruption laa jël lu tax lu ñu ci dugal yeneen yi détournement dañuy public comme ça parce que ñeneen ñi dañ leen poursuivre et pour détournement public. te ñu ci dugal mais pour permettre à tout le monde de prendre part kon enrichissement illicite voilà mun nañ ci dugalaale enrichissement illicite bi mun nañu xoolaat aussi mun nañu tamit ne kan moo bëgg a nekkaat candidat ñu ne yow ñu ne yow lan la woon ñu ne diffamation ñu ne nañ ci dugal diffamation kon diffamation bi tamit ku ñu condamné rek et c'est déclaré expressément rétroactif pour nga mun nekk candidat ak keneen kan wax waxaat leen keneen ku ñu condamné rek te nga nekk homme politique rek ñu jël si kii def benn loi ne loolu baaxatul réew noonu lay doxee mais nañ bàyyi jaaxal nañ bàyyi jaaxal république dafa am ay normes loi su leen ko defee da ngeen koy respecté ci réew mun nañu condamner mun nañu baalaate fii bal nañ fi ay événements liés à la Casamance baal nañ fi ñoom ab Ablaye Wade baal nañ fi ñoom Mamadou Dia mais on passe par l'amnistie une loi d'amnistie ou bien une grâce amnistiante république dafa am ay normes am ay procédures détournement de procédure baaxul mooy nga jël procédure boo xam ne dañ ko permettre pour lii nga utiliser ko pour régler leneen. mais on n'a qu'à amnistier lii ba nga amnistier su dee consensus national la mu dem assemblée nationale mooy problème su fekkee consensus la moo dëgg moo moo gën nga naan non damay jël benn loi wax kii luñ ko condamné diffamation kon nañ jël diffamation annulé ko moom luñ ko corruption de la jël corruption de la génne ko kii moom lan la woon euh, euh, détournement dañu public dañ jël détournement dañu public génne ko gis naa sax benn waaye bu ne nañ nañ def benn loi ne tous ceux qui ont été condamnés pour tout toutes les condamnations pour euh, enrichissement illicite caaxaan wala dañuy gérer réew gérer réew dafa am ay normes lépp nag mën nga ko def nag lépp loo xam ne dafa nekk consensus nit ñi waxtaane ko ba jàpp ko mën nga ko def mais en respectant les normes en respectant les procédures de la République il faut sacraliser la République jubóo politique ak bëgg permettre ñii ñu participer ak kana warul tax ñu salfaañe suñu République parce que attention suñ ko defee daf ñu rattrapé de daf ñu rattrapé de mën nañ ko def waaye ëllëg loolu mooy am de nañ gis Samba bu ñoo def lu doy waar na jël leen loi ngeen annuler li ma defoon man tam pour mu mun ne candidat à la présidentielle attention il faut pas être prisonnier du présent bu ñu gis benn situation rek na nañ leen def lépp yàq suñu toj suñu république juste pour sauver situation bi mun nañu rattraper état du ñu ne ñun rek ñun dañuy romb rek. est dafa am un dossier. dañuy romb rek. est-ce am na ñeneen ñuy ñëw il faut les respecter.